عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ñoo ngi sant suñu borom ñu ngi koy baax di ko kañ di ko jaaree ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi ñu ngi julli di sëlmal ci suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ñaan suñu borom mu dëkk fi lot ci baaru xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ benn yoon ci sunu bi dal tafsir alquran al azim tey di toppeek di sëb juróom ñaari fan ci shahru ramadan akuba bu ngeen seetloo ñu ànd seetlu gis ngeen bis yi dafa gaaw lool da ngay soobu ci koor gi di waaj rek fekk bis yaa ngay dem mboolem li nga doon dégg wala nga ko doon yaakaar ci ay xeeti yiw ci koor gi yëgal ni mi ngi dem te lu dem dootul dellu si waat te amoo kóolute ci déwén dana la fekk wala déet bokk na ci nite mooy doomu aadama mu xam boppam te bokk na ci xam sa bopp mooy xam li lay jariñ nga sonn ca xam li lay lor nga moytu bokk na ci yi ñuy jëriñ bokk yi mooy tereetu wutum tiyaaba yu doy ni yuñ toll bu jotee jaadu nañu bàyyi suñu yitte yépp soobu ci luy tax ñoom gërëmal suñu borom ndax moom mooy ki diggee wutum digge rek mën na ko musul kon ñu ngi nekkoon déggu ci suuratu duxaan ci laay fanweer ak juróom-ñeent lañu taxawoon tey ñu war a tàmbalee ci laaj ngir ci wasaare bi borom bi yow subhanahu wa taala aoudu billah السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون laaye jooju di laaye juróom fukkeel ak juróom ñeent mooy jeexintalu suuratu duxaan bu bu nu seetloo ci suñu bind démb borom bi subhanahu wa taala leeral nañu aslëf ci xeeti mbugal yoo xam ni mbugal na ko xeet ya jiitu woon ak yi nga xamante ni moom lay tëkkoo ñi fi ne këcca gënoon a fës muy firaawun waaye borom bi subhanahu wa taala alak ko lam nekkoon ci ay xéewal borom bi nee na ma doonuloo ko yeneen nit borom bi leeral nu aslëf ci weddi goo xam ni ñenn ñi dañ koy weddi àddina bu jeex muy tukki teg àddina waaye sunu borom di saxal ni loolu lu am la joxeel ko ay firnde yuy tax ñu xam ni am na ngir aji gëm yàlla ju nekk man koo waajal loolu mooy tàmbali sunu bindub tey di inna yawma alfasli miqaatuhum ajmain sunu borom mu ni inna yawma alfasli dëgg-dëgg bisab alaxira yowmul fasli mooy bis bi nga xamante ni ci la yàlla yi teqale yëf yi àddina ak alaxira teqali ko asamaan ak suuf teqali ko nit ak ginne teqali ko lu baax ak lu bon teqali ko ila axiri ñi doon def lu baax ak ñi doon def lu bon suñu borom teqale leen mooy yowmul fasl wa ma adraka ma yawmul fasl borom bi mu ni mën a xam nga dëgg-dëgg lan mooy yawmul fasli sunu borom mu ni yawmul fasli bis la boo xam ni laa tamliku nafsun li nafsin shay'a yawmul fasli sunu borom mu ni benn bakkan ak bu mu mën a doon du fa mënal morom ma dara fa kanamu sunu borom li ko waral mooy wal amru yawma idin lillah mbir yee yépp ka ko yore kenn la muy suñu borom laaye jumel noonu mooy tolloog li ñuy jàng tey mooy tolloog la nekk surtout amma inna yawma alfasli sunu borom mu ni bis bi yàllay teqale yëf yi kaana miqaata bis la boo xam ni borom bi mu ni dañ koo fixé muy bis boo xam ni du randu du tuqu du suppiku inna yawma alfasli sunu borom mu ni bisab alaxira bis bi yàlla yi teqale yëpp yi miqaatuhum mooy seen rendez-vous ñoom nit ñi ajmaina ñoom ñépp alaxira mbokk yi bis la bopp yàlla da koy tëkkoo ñi weddi waaye di ko tiitalee ñi gëm ngir mu nekk jàjj ca ñoom bis la bopp bu yegsee dalika bisab keroog yawmun bis la boo xam ni majmuun lahu nnaas yàlla mu nit ñëpp laay dajale kenn du des wa dalika bis la bopp yawmun mashhuud ñépp a koy fekke waa lu tax mu yeex mu ni wa maa nuaxiruhu yeexewu ma ko illa li ajalin maaduud lu dul ab boo xam ne limoon na ko ba noppi ni faw mu yegg si bis ba dooga yegg yawma yajmaukum li yawmi ljamci dalika yawmu taxaabun bis bi nga xam ni ca la leen yàlla lay dajale ca bisab dajaloo ba bis la boo xam ne doomu aadama lu mu def ci lu baax dana yedd boppam ndax gis ni tuuti na lu mu def ci safaan dana rëy ci moom ndax day gis ni ëpp na sunu boroom subhanahu wa taala mu ni qul inna al awalina wal axirina la majmuuna ila miqaati yawmin maalum ñu njëkk ñaak ñu yàgg ñaak góor ñaak jigéen ña borom bi mu ni ñépp dinaa leen dajale ci bis boo xam ni moom laa woote ni nit ñi danañ ko teewe si sunu borom mu ni inna yawma alfasli bisab alaxira miqaatuhum mooy seen rendez-vous yéen nit ñi ajmaina yéen ñépp kenn du tardé amul benn bakkan ak mu mën a doon xatta walaw kaana nabiyan ñu dem ba alaxira ñu naan xaar leen diw yegg seegul déedéet wala diw la ñuy wër loolu amul alaxira alaxira ñépp ay ñëw ajmain yastaxriqu jamia alaalamin dafay ëmb làmbaale mboolem bindee fi nit yaag jinne yeeg góor ñaag jigéen ña mag ñaag ndaw sunu borom mu ni inna yawma alfasli bisab àddina bu tukki wala bis bi sunu borom di teqale diggante dëgg ak neen miqaatuhum mooy seen rendez-vous ajmaina ñoom ñépp muy rendez-vous boo xam ni amul kenn ci doomu aadama yi koo xam ni dana ko wuute wala dana fàdd li ko waral mooy sunu borom dani doomu aadama yi ne ci kaw suuf yépp amu ci kenn lu dul dina dëkkal sunu borom te buy ñëw moom rek mooy ànd borom baa ngi wax ci suuratu Taaha wala wala suuratul Maryam in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda amul kenn ak ku mën a doon mu ne ci asamaan wala mu ne ci suuf lu dul borom bi nee na dana ñëw te buy ñëw moom rek mooy ànd mbokk yi laaye jooju ak yi nu jàng ak yi ni mel aji am xel ju ko tiim mu di ci xalaat mu xam ni bisa ngi ñëw boo xam ni moom rek moom la nuy suul loola moom teg nañ ca bët ni ki nga xam ni buñ lay jébbal sa boroom kenn du la topp buñ lay àtte kenn du la topp doomu aadama yi liñ teg seen bët nan ci sukkandiku pour gëmee ko lan tegul seen bët danañ la takk ba nga dëgër wàqi ba mu xóot sóol la fa bàyyi la ak sa borom dem jàll ci yeneen yitte mbooloo ma la ñuy bari bari lool ca péncam suñ borom yow rek yàlla rek ak say jëf nga fekk ëmb boo xamee rëy na lool fekk la nga fa jëf rek moo fa nekk wa wajadu ma amilu xaadira sunu borom mu ni fekk ngeen li ngeen doon jëf yëpp ci àddina jiitu na leen wala yazlimu rabbuka ahadan mu ni sa borom yàlla moom du tooñ kenn ndax doo fa fekk benn jëf bu ñaaw ñu naan la yaa ko def te fekk defoo alaxira doo fa fekk benn jëf bu baax boo xam ne defoo ko bu dee lu baax mu soppaliku naat nëtëx neex a xool su dee safaan day safaanoo xool lool ba doomu aadama du ko bëgg gis borom bi mu nii inna yawma alfasli bis bi yàllay teqale yëf yi miqaatuhum mooy rendez-vous nit ñi ajmain ñoom ñépp ndax yàllaa woote te ñépp ay wuy si sunu borom mu ni yawma bisub keroog laa yughni du manal mawlan kenn ci jegeñale yi an mawlan ci keneen ci ay jegeñaaleem shay an dara ba dara booloo jeex wala hum yunsaruun tey kenn du am ku ko dimbali mbokk yi sunu borom fari leen yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a pour wan la alquran ni mu amee balaaxa ak ni mu jotee ak répété wu aay benn bu ci nekk la mu dëxëñ ci ay njariñ fële borom bi dafa itlaaq fii borom bi dafa taqyid itlaq gi mooy benn bakkan du mënal morom ma dara amana doomu aadama ji jàpp ni xëy na sa jege ñaale sa baay sa ku la gën a jege moom mën na laa jëriñ du bokk ca ñooñu suñu borom ni pour mu gën a leer dama ni laa yughni mawlan an mawlan nit ak lum la jege-jege xam nga fële nit la waxoon kon fii nit la waxaat waaye nit ke mu ni mawlan ak lum la jege-jege-jege borom bi mun du la jëriñ yow ma bi su keroog mu ni laa yughni du jariñ mawlan kenn ci jegeñaale yi ak ku mën a doon an mawlan ci keneen ci jegeñaale yi ak ku mën a doon shay an dara ba dara booloo jeex wala hum yunsaruun sunu borom mu ni kenn du leen dimbali mbokk yi foofa day buñ fa yeggee amul kenn koo xam ni dana defal kenn benn intervention déedéet la ko waral mooy réalité yi daw fii ci àddina du yooyu mooy daw ci àllaaxira moom mi woote bis bi muy sunu borom teel na noo dànkaafu ni amul ku fay mënal kenn lenn yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a lu tax ni wala amru yawma idin lillah borom bi subhanahu wa taala mu ni kenn ci jege ñaala yi du jariñ morom fa ida nufixa fi suur sunu borom mu ni saa bu ñu walee bëft bi fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun sunu borom mu ni lenn ci xeeti mbokkoo akuk geño du dox ci diggante kenn ak morom ma wala yatasaaluun kenn du la laaj foo bokk ak ka nga bokkal nangam laa santoon sant yi ci àddina la yam lan lay wax bu dikkee ba laaxir di wax man kat sëtam diw laa woon ñu wax ne ay sëtaki sëtërñi ay juróot ay baay ak i doom yooyu foofa la yam ci àddina man kat ci askanu sëriñ diw ñoom laa bokkoon ñu ni ay askan foofa dagg na fala ansaaba baynakum yawma idin wala yatasaaluun foofu sax dañ la fa dul nekk di la laaj sax nag wala yatasaaluun kenn du la laaj foofa yow noo sant ba ngay présenté wu maanaam mbokk yi bokk na ci li trompé nit ñi mooy dañuy gam-gamle àllaaxira ak àddina ci bokk yi gis nga yéen xam fii di ko natt du mooy am foofu wala yatasaaluun yàlla mu ni kenn dala dul laaj foo bokk sax ba nga koy wax yow kenn dala dul déglu sax ba ngay wax noo sant maanaam ñoom benn dossier la ñuy xool mooy dossier bi def tiyaaba yi ak dossier bi def bàkkaar yi lenn daal mooy loo xam ni moom boo ko amee da nga jariñu mooy fa man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun ku ñu yëkkati sa wali sab tiyaaba fekk mu fees dell suñu borom mu ni tëbal te nga xam ne yow moom say mbir baax na waaye ku ñu làmb say tiyaaba mu woyof toll ñu làmb say bàkkaar mu diis gann fa ulaika alladina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun suñu borom mu ni ñooñu waxuma la perte waaye pertaange gi ñu perte nit mësta perte perte gu ni mel ndax lim xamoon mooy doomu aadama day yëngatu ci dara mbaa muy lëggéey mu xëy perte mu war a dem wutiwaat leneen waaye sunu borom ni fa ulaayika ñooñee alladina xasiru anfusahum mooy ñi nga xam ne ñoo perte ba perte seen jëmm ya ndax bu fekkente ni perte nga ba tàbbiwoo ajana jëmm ji nga waroon a exploité waat pour yërëmtalu wala liggéeylu la war a mën a tax a dugal àjjana nga dab dabal waaye sunu borom mu ni jëmm ja nga war a liggéey loola kenn du ko bàyyeeg yow jëmm ja la ñuy jël di ko mbugal moo tax mu ni xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun sunu borom mu ni kenn du jariñ morom ma wala hum yunsaruun tey kenn du leen dimbali illa man rahima allah lu dul koo xam ne moom yàlla daf koo yërëm yàlla na borom bi subhanahu wa taala yërëm ñu mbokk yi su boobaa yërmande rek di suñ borom moo mën a texeel nit ki moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani amul kenn ci yéen koo xam ni ay jëfam mën na koo tàbbal àjjana saxaaba yi ni ko ba ci yow mu ni ba ci man kay li am kay mooy yàlla moo ñuy xoolee yërmandeem jéggal nu fulal nu liñ jot a baaxle waaye du ñun ñoo liggéey lu ñu tàbbal aljanna yàlla na yàlla yërëm ñu sunu borom ni illa lu dul man rahimallah ki nga xam ne yàlla daf koo yërëm ndax innahu moom sunu borom huwa al aziz mooy ki not ci nguuram waaye arrahim mooy ki bari yërmande moom sunu borom al aziz mooy ki not ci nguuram ba lu mu def amul ku koy critique te du mujj fenn arrahim mooy ki am yërmande ba jaam yi li ñuy bari bari bari yépp ci yërmandeem ja la ñuy tàbbee àjjana gis nga yërmandeem ji mbokk yi tàbbalee na ci àjjana ci nit lu mu foogul gis nga àllaaxira nga gis ay milliards yi doomu aadama yu tàbbi àjjana te bu leen yàlla ne lii laa leen yërëmee ba dugaleen àjjana ñoom da leen di bett moo tax gis nga def lu baax bul ca xeeb dara laa taxqiranna min al maaruf shay'an yonent yàlla bi neen lu baax bul ci xeeb dara waaye Aïcha nee na yonent bi nee na iyaakum muhaqqiratu zunub moytu leen bàkkaar yi ngeen di xeeb gis nga tiyaaba yi ngay xeeb mën na laa wallu te xamoo ci dara gis nga bàkkaar yi ngay xeeb mën na laa alak te yëgoo ci dara tiyaaba yi ngay xeeb te mën na laa tabal àjjana gis ngeen misaal mi ñu ciy joxe ci jigéen jooju nga xam ni dafa demoon ca caay-caay ba dëpp dëpp romb xaj buy yalkat ci pegg teen mu jukki ci ay koketam may ko mu naan yërmande jooje ca la ko suñu borom yërëmee mbokk yi ab xaj di ab rab ab saay-saay yërëm ko borom jaam yi yërëm saay-saay ba waaw yow sa yërmande ji soo ko jëlee jëmale ko ci jaami yàlla yi mu ndax yaakaaroo nga am yërmande suñu borom xon kay wa kazalika borom bi subhanahu wa taala benn waay ca ñu yàgg ña yonent bi nee na da doon faatu mu xalaat ni bu ko yàlla jàppee bu ko mbugalee dana yàqu dana def nii mu ni doom yi yéen man ban bàyyi laa ci yéen ñu ne ko yow de baay yu baax nga ju am yërmande yaa ñuy dundal yaay def nangam mu ne kon de xanaa lu ma leen sant di ngeen ma ko defal ñu ne waaw mu ne su ma dee da ngeen may lakk ba ma xam nekkub doom ngeen bàyyi ba bisab ngelaw ngeen sànni leen ni ca géej ga sànni leen ni ca jéen ji ah mu ne ko baax na mu faatu ñu defal ko noona sunu borom daal di dajale ruusit yooya dajale poussière ba dajale pënd ba ak dóom ba daal di koy dekkal ni ko kun mu ni cëpp taxaw sunu borom ni ko waaw yow sa jëf ji nga def loo ci jublu xadis bi yonent moo ko dekkil alayhi salatu salaam mu ni wala in qadira alayya rabbi ah bu yàlla bu dee yàlla am na kàttan ba jàpp ma baat boobu bokkaale yàlla la musiba la kéefër la ndax sikk sàkk la ci kàttanug yàlla te képp ku sikk sàkk ci kàttanug yàlla yéefar bu yàlla bu dee yàlla am na kàttan ba man maa jàpp su ma jàppee tey mu rayon ba ma dee mu ni ma xam ni soo ma jàppee da nga may def musiba ma ma wasaare sama jëmm ji noonu def ko dóom ngir dooma mën a dajale yow yàlla foog foogam la doon wax sunu ma daal di koy xool ba mu yàgg mu daal di koy yërëm mu ne ko lii lépp ragal sa bugal dong nga tax ma dugg ci waaye xam naa ni baaxul sunu borom ni ko musal naa la ci sama bugal dama tàbbi àjjana xoolal jëf ji ni mu bonee jëf ji mu def nga xam lislaam da koy tere xoolal li mu wax ni mu bonee nga xam ni bokkaale yàlla la kéefar la waaye xoolal lam doon tiit mooy mbugalum sunu borom borom bi xitil la beneen waaye ngi boo xam ni dafa romb carab garab bu fàq ca garab ga daanu ci yoon wi am ay dégg mu ni xaarama randal ko balaa muy lor jaami yàlla yi mu dee suñu borom mu ni ko loolu laa la yërëmi tàbbala àjjana moo tax mbokk yi yëf yi làmbaatu la rek kenn xamul fu suñu borom di la jéppee kenn xamul fu muy kontaane ci yow yent yàlla bi nee na même boo toggee lu am ñeex mu ni xellil ci sa dëkkandoo nga may ko ca même boo yoree doomam tàndarma xar ko ca digg ba jox sa mbokkum jëri mu lekk ngir nga wattoo ko sawar kon doomu aadama bu mu xeeb ay bàkkaar dara waaye bu mu xeeb aw yiw tamit borom bi subhanahu wa taala mu ni bisab alaxira day bis la boo xam ni kenn du mënal morom ma dara illa man rahima allah lu dul ki nga xam ne yàlla daf koo yërëm innahu moom sunu borom huwa al azizu rahim mooy ki not ci nguuram waaye mooy ki am yërmande sunu borom mu ni inna shajarata zaqqum garab gii nga xam ni moom la ñuy wooyee shajaratu zaqqum ca sawara sunu borom mu ni taamul afim mooy lekku saay-saay yi ci biir sawara al afim defkati bàkkaar yi sunu borom mu ni garab gu ñuy wax azzaqum mooy nekk seen lekk bu ngeen xoolee mbokk yi borom bi subhanahu wa taala melal na garab gii ci biir téere bi sunu borom day wax subhanahu wa taala ni garab googu de talluha cëgg ya ka annahu ruusu shayatin sunu borom mu ni cëgg garab la yoo xam ni mi ngi dijj këndal ba tol ni bopp seytaane la aakiluuna minha tayit di ngeen ci lekk nag amul bëgguma amul dafa wex amul suur naa la aakiluuna minha sunu borom mu ni di ngeen ci lekk de fa maaliuuna minha albutuun tey di ngeen duy biir yi ba mu fees amul lekk tuuti suuf summa inna lahum suñ noppee ca loola alayha la shawbun min xamim suñu borom ni dina leen koojal dëtti wànjar gi bàyyi ko sawara kooj mooy doomu aadama su yoroon glace glace gi sedd lool nga jël am ndox sotti ci loolu la ñuy tuddee kooj ngir tàngooru ndox mi wàññi tàngoor seddaayu ndox mais ba nga mën koo naan loolu mooy saw sunu borom mu ni tumma inna lahum alayha bu ñu lekkee alayha mooy tege ca kaw lekk ga la sawban ab am kooj min xamim ci dëtti wànjar di bàyyi kooj sawara summa inna marjiahum bu ñu lekkee ba pare ba foog ni maanaam mucc nañ xëy na lii ñu leen jox métti na tey ñu xitil leen la ilal jahim suñu borom mu ni ñu daal leen tàbbalaat ca biir sawara sa gis nga de yii ay xeeti tëkku la yoo xam ne mbokk yu doy waar la borom bi subhanahu wa taala da koy tëkkoo ñi gëm yàlla ngir ñu waajalee ko seen bopp suñu borom mu ni inna shajarata zaquum garab gii ñuy wax garabug zaquum taamul athim mooy lekku saay-saay yi defkatu bàkkaar yi abu jahlin alayhi min allahi ma yastaxaq ah nga xam ni laanatullahi alayhi ci xeeti weddi ak xeeti kéefar ak doyadal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci lu jéggi dayo abu jahlin am na ci borom xam-xam ñu wax ne aaya ji ci moom la wàcc waaye li gën a dëgër mooy al ibratu bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab ci aaya ji même bu wàccee ci abu jahlin képp ku dul abu jahlin te def jëfi abu jahlin ca ngay bokk ndax uxsuru alladina zalamu wa azwajahum borom bi subhanahu wa taala daal ni mboolem ñi nga xam ne ñooy saay-saay yi loolu mooy nekk seen lekk sunu borom subhanahu wa taala def ni lekk googa lekk la gu weqat mooy tolloog la sunu borom di junj suutul xaasiya sunu borom mi ngi wax ni laysa lahum taamun illa min daria waa sawara bu ñu tàbbee sawara amul luñ fay lekk illa min daria lu dul garab googu nga xam ne boo ko doon méngale fii ci àddina pour bët mën a gis ba xam lu mu nuróol mooy garab yooyu tudd gargamboos nga xam ne dafa mel ni bal ron te am ay dég nga xam ne doomu aadama ji bu koy lekk ci biir sawara wala iyaatu billah du ko dagg du ko xolli loolaay waral bu duggee ci gémmiñam da koy fotal moo tax sunu borom wa taaman da gussatin wa adaban alima aw ñamangoo boo xam ni sunu borom mu ni kum dugg ci sag buli fot loola ak mbugal mu méttee métti moo xam ne moom leen di xaar yàlla na borom bi subhanahu wa taala boo leen ci musal mbokk sunu borom mu ni kal muhli sunu borom mu ni inna sajarata zaquum lii nga xam ni mooy garabu zaquum taamul athim mooy lekku saay-saay yi ak defkatu bàkkaar yi ci biir sawara kal mughli sunu borom mu ngi mel ni diw gu sens yaxli di wañax fil butuuni ci ay biir sajartu zaqum sunu borom mu ni garab la de garab la waaye garab ga bu fekkee doomu aadama ji lekk na ko yàlla mu ni tàngoor wa muy yore ci biiram kal mughli mi ngi mel ni diw gu sens yaxli ma ngay wañax fil butun ca biir ya soo demee ci suratul hajj ak suratu muhammad suratu muhammad sunu borom mi ngi wax ni wa suqu ñu nandal leen ma an xamima ndox moo xam ni mu tàng lool la fa qataa amaahum sunu borom mu ni mu daggate xam ngeen ne qataa ci arab mooy dagg na qat taa mooy daggate na te xam ngeen ne daggate boo gën a métti dagg borom mi mu ne fa qatta amaahum mu daal di daggate seen butit yi nekk seen biir yi ndax tàngooroo boo xam ngeen doomu aadama mënu koo dékk wala ayaasu billah lii moo taxoon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana muslu ci sawara lu ëpp ñetti yoon ci bis bi yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ki du muslu ci sawara lu mat ñetti yoon ci bis bi lu dul sawara day wax sunu borom tee ngaa musal waa ji nga xam ne aw njàqare nga koy bëgg a rey ci man sunu borom daal di koy musal ci sawara du ñaan àjjana lu mat ñetti yoon ci bis bi lu dul àjjana day wax yow sunu borom tee ngaa yërëm waa ji nga may ko àjjana sunu borom daal di ko yërëm may ko àjjana yal na yàlla defal lu loolu borom bi subhanahu wa taala mu ni kal mughli mi ngi mel ni diw buy saas yaxli di wañax fil butuuni ci biir yi soo demee ci suuratul xajj borom baa ngi wax ni dañ leen di sotti ci seen kaw ah la nga xamante ni moom mooy tàngoor woowee yusabbu fawqa ruusihim alxamim yàlla mooy damay sotti ci seen kaw bopp ya tàngoor woowee yusharu bihi yàlla mu ne ci la ñuy wësamee maa fi butunihim mboolem li nekkoon ci seen biir ya butit yaag xol baag mbàq gaag faar yaag yàpp waag sidit yaag lekk gaag xëtër yaag yépp sunu borom ni yusharu bihi ma fi butunihim borom bi mu ni dama cay wësam mboolem lu ne ca biir ma wal julud borom bi mu ni ca lay wësamee it seen der ya sunu borom ni kullama araadu an yaxruju minha min gammin saa bu ñuy daw ñu seen mbugal mi ñëw ñuy daw seen benn côté di daw ngir yaakaar ni ñoom fële mën nañ faa jaaree génn sawara uidu fiha borom bi ñu ba mu xaar leen ñu dugg ca biir wa duuqu sunu borom daan leen mos leen adab alxariq mbugal mii nga xam ne mooy lakke sunu borom ni dalik lii nga gis nii bi ma qaddamat yadaak yow yaa ko def wa anna allaha laysa bi dallamin lil abid yàlla mu ni man du ma tooñ kenn mbokk yi sunu borom mu ni ka xaliyil xamim ma ngay wañax ka xaliyil xamim comme wañaxuk ndox mu tàng su fekkee nit dafa teg cinem wala tàngalu kaayam fii ci àddina mbokk yi nga xam ni tàngoor wi soree naag lool ak tàngoor wale doomu aadama dana teg la muy tàngal di ko tàngal ba xeetu tàngoor wa yegg ci boo tijji woon kubéer gi nga tiimale sa xar kanam mu lakk te yent yàlla bi nee na boo ko fulee tàngoor ba muy juróom-ñaar fukki yoon yu manqué benn mooy mbugalum suñu borom suñu borom mu ni xuduuhu jëlal leen jëlal leen ma waaji faateluuhu ngeen nguufaan ko ila sawaa'il jahim ngeen tëmbal ko ca biir sawara ca digg ba rot na ci benn xadis bu wér yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni saabu sunu borom ne jël leen ko lu mat juróom-ñaar fukki junni ci ay malaaka ñooy tëbandoo ngir di xëccoo waaj mbokk yi xoolal doomu aadama ak ni mu yërëmtaloon ni mu tuutee xoolal ni mu doyadee ak ni mu ñàkk ma ne fegal boppam ay lor xoolal mbugal mii ni mu méttee ak ke ko moom lim la wax ci xeeti la la cay dugal di la ko moytudoo ak la la cay mën a génne di la ko def loo waaye nag doomu aadama ku dëgër bopp la ku dëgër bopp la ndax jàpp naa ni mbokk yi xeeti wax yu diisee nii doomu aadama ju ko dégg ba noppi continuer ca lam nekkoon ci mooy kooku amutum xel xeeti mbugal yu metti yi doomu aadama bu ko dégg ba noppi te wutul lu ko ca musal kooku foog na ni muus na waaye amul xel borom bi mu ni xudoohu jàppal leen ma waa ji faatiloohu ngeen nguufaan ko ila sawaa'il jahim ngeen tëmbalal ma ko ca diggu sawara summa su ngeen paree ca loola subboo na ngeen sutti fawqa ra'sihi ca kaw boppam ba min adabil xamim luy xiti mbugal rek ci mbugal mu métti ma sunu borom mu ni sutti leen ko ca kaw yu soppu ah min fawqi ruusihim alxamim sunu borom mu ni sawara si ca kaw la lay jóge di alaw di ko di wadd di daanu si sa kaw bopp sunu borom mu ni summa subbu sutti leen fawqa rasihi ca kaw boppam min adabil xamim ci li nga xamante ni mooy mbugalum sawara su métti soosu nattal yow jaamab yàlla bi nga xool doomu aadama bu toogoon ba mu yàgg rek wenn xalu sawara rek jógee ca kaw benn xal fii aw këriñ wu def xal waddee ca kaw daanu sa bopp bi fekk sa karaw di lakk imagine loolu ana ban dayo la toll ci métti xoolal tey ñi nga xam dañuy lakk te courant moo leen di lakk ñay lakk te fekk sawara moo leen di lakk ñii lakk fekk essence moo leen di lakk xoolal xeeti lakk woowu ni mu méttee nga xam ne day àgg ci daraja joo xam ni degré boo xam ne docteur du ci man dara te loolu boo ko multiplier ba muy 69 fois mooy mbugalum suñu borom bu suñu borom daan leen subbu summa subbu su ngeen noppee ngeen sutti fawqa rasihi ca kaw boppam min adabil hamim ca mbugal moomu nga xam ni mbugal mu metti ma la te it nag malaaka yi teg ci di ko ñaawal naan ko duq mosal waay innaka yow day antal aziz tey day yaay ku tedd ki alkarim antal aziz yaay ku not ki alkarim yaay ku tedd ki gis nga abu jahlin abu jahlin ku ko gën a bandi gën koo saay-saay gën koo bon gën koo xaje amul dafa ñëw ba ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu woo benn waay ni ko jox ma doomam tàndarma mu jox ko doomu tàndarma mu ni ko indi leen ma tuuti bër ñu may ko bër mu jël tàndarma ji capp ko ci bër bi bi mu ko cappee daal di sex lekk mu ni ma dox yéen mas ngeen a mos lii ni mu neexee lii de mooy zàqum ji ñu yonent bi tëg koo àllaaxira mu ni lii de mooy zàqum ji man moom xaaral ma tàmbali cee lekk xaat balaa ñu faa yegg man loolu mu di ko wax ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax moom ci ñiy njëkk a lekk ci xeetu mbugal mi ca la bokk abu jahal wallahi bu fekkente ni yàlla baaxee na la nga xam teg say sharia ak ni mu mel même abu jahlin boo ko yéenee mbugal mi sax da nga ko yërëm après kenn ku ne nag bala nga yërëm kenn sa bopp nga war a jëkkatal ba noppi waaye ak garanti gu wér ci ni moom day lakk abu lahab day lakk sa yasla naaran zaata lahab xam nga keneen ku dul ñoom amaana yaa ngi yaakaar yërmande yàlla di tiit mbugalam waaye yow moom xamoo maa yufaalu bi wala bikum yonent bi nee na waxal gaa yi ni leen man sama mbiri àddina yii xaw ma lu ma yàllay def ak lu mu leen def yàllaa xam ko waaye wallahi booy xool ba mu yàgg ñi nga xam ne alquran dafa wàcc ci ñoom tëkkoo leen sawara di nga yërëm sa bopp de waaye di nga leen yërëm lool xoolal mii xeetu buggal nga xam ni dégg gi rek daf laa tiital ñu ni ñoom ca la ñuy dëkk xoolal waa kër firawna ah nga xamante ni yuraduna alayha guduwan wa ashiya même ci biir bàmmeel yàlla mu ne ñu ngi leen di yónnee si ration mbugal par suba am malaaka yi leen di indil ration mbugal par ngoon gis nga de guduwan wa ashiya yàlla mu ne ñu ngi leen di yónnee seen buggal alaxira nag moom taxut di wax sunu borom nee nañu gars yi naan zuq musal waay comme nee nga ci àddina yow yaay ku tedd ki innaka yow kat anta al aziz yaay ku lot ci sa nguur ah al karim yaay ku tedd ki comme ci àddina loolu nga foogoon kon yaay ku lot ki yaay ku tedd ki fekk loolu kokkali la loolu kokkali la am na xeeti wax yoo xam ni rot na ci alquran waaye waxi ni kuy ñaawalaate la nga xam ne dañ koy loolu ci mbugal ma la bokk xam ngeen ni fii ci àddina dara gën a métti nit ki nekk ci lu naqari ba noppi nga di ko ñaawal loolu dafay yokk dëgërëb bonaayu xol day yokk dëgërëb mer suñu borom mu ni gaa yi daan ko duq mosal waay innaka yow kat anta al aziz yaay ki not al rahi al al karim yaay ku tedd ki sunu borom mu ni inna haada lii ngeen gis nag maa kuntum bihi mooy li ngeen nekkoon ca àddina tamtarun di ci sikk sàkkaak di ko weddi bi ngeen nee ca àddina li ngeen doon weddi ak di ko sikk sàkka ak di ko dàq ak di ko xaaj gi borom bi mu ni yëf yaa gii moo yegg si tey moo tax mbokk yi àllaaxira day lu mat di nafaree alquran la aay yi mbokk yi ñun ñii lay waxal aay yi ñun ñii lay waxal saxaaba ya day ba yonent bi jàng alquran ci ñoom amul kenn ku doon fenti ay aaya comme ñun ni ñuy def ah ñun de dal nam xel ñoom diw la ñuy waxal déedéet aji gëm yàlla buy naaw day naawee ñaari laaf laaf bee da cay yaakaare yërmande yàlla ba gëm ni sax day du ko ajal waaye laaf wee da cay yaakaaree ni moom bu ko yàlla dimbalewul mën naa bañ a mucc ci sawar loolu mboolem kibaaru saxaaba wa sigaarihim noonu lañ doon dundee wa kadalika taabiuuna min baadihim walladina tabiuhum bi ixsaanin ila yowmina haada sunu borom nee na inna almuttaqiina gaa ñi ragal yàlla fi maqaamin ci ay dëkkuwaay ci ay hôtel ci ay dalwaay yoo xam ni amin yu wóor la yu ñu sécuriser la allahu akbar lii moo tax mbokk yi alquran tudd mathani wa laqad ataynaaka saban min almathani walquran alazim asabul mathani mooy mbir yi baamutu day tudd ajana tudd sawara tudd asamaan tudd suuf fu mu tuddee guddi tudd fa bëccëg tudd nit tudd fa jinne tudd alaxira tuddaale àddina maanaam ñaar yooyu ñuy boole mooy asabul mathani te it mooy alquranul azim te it sabul mathani day teg alquran aya fatiha tamit sunu borom ni innal muttaqin gaa yi ragaloon seen borom ci àddina ñi nga xam ne foo leen fekk seen fit yaa ngi rëf rëfi ndax tiit gu ñuy tiit tàbbi ci bëggalum sunu borom ñi nga xam ne leen yàlla wërsëgal ci alal lañ man ña ngi ko cay def ndax bëgg yàlla nangul leen lu yàlla ni buñ ko xool gëmm nañ ca dootuñ ko gisati lépp lu yàlla ni nañ ko def ña nga cay góorgóorlu tey ñaan suñu borom teetal leen lépp luy jurug texee di tey ñaan yàlla nangul leen la ñuy def idal muttaqin suñu borom ni gaa yooyale fii maqaamin dañuy wàcc ay wàccuwaay ay hôtel ay kër ay dëkkuwaay ay nekkukaay yoo xam ni amiin yàlla ma ne yu am sécurité la tabax du fa daanu courant du fa coupé courant du fa sote tiwam ndox du fa toj ak lakk du fa am màbb du fa am yàqute du fa am yàlla mu ni yii yëpp di yàq dëkkuwaayu àddina yi yàlla mu ni musal naa leen ci seen dëkkuwaay ci àllaaxira allahu akbar taa xam kaw ma ngay nekk lu mu yàgg yàgg yàgg day mel ni léegi lañ ko defar ndax yàlla moo ko garanti amiin yàlla mu ni tout lépp am sécurité lépp amul fenn fu doomu aadama di jaar ci ajana di xalaat naan lii mën naa màbb daanu sama kaw wala lii mën na maa fakkastal wala mën na maa feebar wala mën na maa jural am sot wa déedéet amiin yàlla mu ni lépp lañ sécurité lañ defal sécurité fii jannatin yàlla mu ni ci ajana yoo xam ni ak naat wa uyun ak bëti ndox yoo xam ni ma ngay daw la man ci ay xel allahu akbar sunu borom mu ni mathalul jannati allati waida al muttaquun mu ndax yéen xam ngeen misaalam àjjana mi ma dig ñi gëm yàlla ñu ni déedéet mu ni ukluha daaim lekk ga moom dafa sax dàkk wa zilluha keppaar ga sax dàkk mu ni tilka uqba alladina taqaw ñi ragaloon yàlla fii lañ nar a mujj ak man yàlla sunu borom boole ñu mu ni wa uqbal kaafirina annaar misaal mujjantalu saay-saay si mooy sawara yàlla suñu borom boole ñu ci musal suñu borom mu ni masalul jannati allati wa'ida almuttaquun moo tax xam ngeen misaalum àjjana mi mi leen jik mu ni fiiha anhaarun min maa'in gayri aasib yàlla mu ni foofa am na ay dex yoo xam ne dexi ndox la du lëngi du suppeeku du am cafka lu dut neex wala njaan du ca dem tey kenn du ko tëj ndax saltee ko dut jege am na fay dex yoo xam ni min asalin musaffa lem la koo xam ni yàlla muy dañ koo segg ba mu set nekk original lem lem gu set wecc piir lool nga xam ni doomu aadama xet gi rek ay cent kilomètres da koy xeeñ te fekk lem gaa koy xeeñ wa anhaarun min xamrin lazzatin lisharibin ay dex yoo xam ni sunu borom ni dexi sàngara la sàngara soo xam ni doo ko naan mukk ba mu soppi sam xel laa yusaddauna anha du la métti bam wala yunzifuun tey du la métti biir tey du la màndil nag sunu borom mu ni wa anhaarun min labanin lam yataxayyar taamu soow moo xam ni ak dex lan ca am yàlla mu ne lam fay yàgg yàgg soppi ko wut déedéet defu li ëgg xeeñut foroxut yàquwut diw ga néewut bàpp ca kaw diw ñor ga néewut bàpp ca kaw ca suuf nekkut am ndox ci kaw ga di soow déedéet yàlla mu ni yooyu yëpp du ci am ndax yàlla ne na maa leen ko teetal ba loolu du fa am sunu borom mu ni innal muttaqina ñi ragaloon yàlla fii ci àddina fii maqaamin ci ay daluwaay la ñuy wàcc yoo xam ni ka amiin yu wóor la fii jannaatin ci ajana yoo xam ni wa uyuun ak ay bëti ndox yoo xam ne ma ngay daw ca suufam yalbasuuna bu ñuy solu min sundusin dañuy sol ci sundus wa istabraq ak istabraq mutaqaabiliina te dañuy jàkkaarloo istabraq mooy suwaa bu diis gan sundus mooy suwaa bu diis gan istabraq mooy suwaa bu oyof toll ba pare yàlla def ci ay camlangal nag ay ay ay tere tere istabraq ay maa yabruq mooy dem ay mbir yoo xam ne day léeg-léeg nga gis ci kol yi jigéen ñi di kolo wala yëre yi ñuy sol nga gis ay yëre yoo xam ni ci kaw dañ ci def ay xeeti lerxat nga xam ni yëre bi bu la daandee da ngay séen muy lerxat di biree ci naaj bi loolu mooy istabraq mooy suwaalay bu oyof toll yàlla nee na boo ko solee da ngay gis mu commencé di biree allahu akbar sundusin xudurin wa istabraq sundus lay doon muy suwaa bu diis gën waaye xudur couleur vert la ko yàlla jox wa istabrax yàlla mu ne ak istabrax wa xulloo ma takkal leen asaawira ay lama ki jaaro min fidda yoo xam ne yépp or lay doon wa saqaahum rabbuhum yàlla mu ni ma nandal leen ca ajana ja sharaban tahura nand gu laab goo xam ni boo ca naanee dootoo marati naan lay doon ngoo xam ni mboolem lu doomu aadama doon yëg ci mettit ci yaramam bu ca naanee teqalikoog moom sunu borom ne inna haada lii ngeen gis tey kaana lakum jazaan mooy li ma leen di fayee wa kaana saayumkum mashkura parce que damaa kontaan ci yéen allahu akbar mbokk yi yal na yàlla boolem ci ñi muy kontaan ci moom wa kaana saayukum mashkura mooy lii ma leen defal lépp li ko waral mooy damaa kontaan tey ci yéen saayukum mashkura mooy yàlla danaan kontaan naa ci yéen tey allahu akbar rida allah allahu akbar xoolal ibn al qayim rahimahullah nee na waa ajana bu ñu tàbbee ajana bay ñaan yàlla danaan leen saluuni ñaan leen ma saluuni ñaan leen ma mastahaytum lu leen neex laaj leen ma lu leen neex ngeen ñaan ko mu ni fa kullu ma turiduuna indi lu ngeen bëgg mi ngeeg man mu teg ci ni innani ana arhamu man maay borom yërmande ji allahu akbar saluni wax leen lu ngeen bëgg gaa yi ni ko nahnu nasaluka rida ñu ne ko yow yàlla ngërëm dong leen bëgg ci yow yàlla mu ne su ma leen gërëmul woon du ngeen dugg fii wax leen leneen allahu akbar saluni ñaan leen ma ndax lu ngeen di ñaan am naa ko fa innani ar ana arhamu man maay yërëmaate kon bi ñu ni ko nahnu nasaluka rida yàlla ñu ngi lay ñaan ngërmande mu ni ngërmande bu ngeen ko amul woon du ngeen dugg si fii wax leen leneen ajana waa ajana lu ñuy doyee leneen boo amee ngërmandel sunu borom lan ci kaw suuf ngay soxlawaat même fii ci àddina wallahi alazim fii ci àddina nit ki bu amee ngërmandel yàlla bu xamee luy ngërmandel yàlla soxlaatu dara dara soxlaatu ko ci àddina moo tax sunu borom mu ni yalbasuuna dañuy sol min istabraqin ci suwaa bu dis gann ah min sundus ci suwaa bu dis gann wa istabraq suwaa bu oyof toll tey bërëx bërëxi di birye di lerxat sunu borom ni mutaqaabiliina tey dañuy jàkkaarloo àjjana amul kenn di toog kenn di toog ci ginnaawam déedéet wallahi mbokk yi xool nanoo xool xool ban ban xeetu organisation la sunu borom organisé waa àjjana ba kenn du toog sa gannaaw morom àjjana amul nga toog sa morom toog sa gannaaw déedéet kenn du xool sa ndogu morom ñépp ay jàkkaarloo ñëpp ay jàkkaarloo mutaqaabiliin mooy da ngeen di jàkkaarloo amul kenn kuy toog di gis sa ndong ak morom déedéet yàlla mu ni fan toog daal xam ngeen ni bu ngeen fa toogee alal araiki day nekk ci kawe ay lal ay fauteuil yoo xam ni muttaki oon mën ngaa soonu ay at te doo toog sunu borom mu ni mutaqaabiliin tamit da ngeen di jàkkaarloo allahu akbar wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun gis ngeen ko ci surtu Saaffaat yàlla mooy nag nga gis nit ñi commencé ñëw ñenn ñi di laaj seeni morom wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun ca surtu Tuur mu naa inna kunna qablu fi ahlina musfiquun gis nga aqbala baaduhum ala baadi mooy ba ñu dajee ñettab bi àjjana ñenn ca ñoom naan inna ñun day kunna dañoo nekkoon fii ahlina ca àddina musfiquun tiit lool mu ñun bu ñu tàbbee sawara fu ñu koy waxee ñi fa manna allahu alayna yàlla baaxee ñu ci xéewalam gi wa waqaana mu fegal nu azaba samuum mbugal mii nga xam ni moo gën a bon poson inna kunna min qablu dad'u ñun nag wax dëgg yàlla ñun nag wax dëgg yàlla inna ñun kunna dañoo nekkoon min qablu ca àddina nad'uuhu di ko ñaan mucc ci sawara ak tàbbi àjjana innahu huwa albarru rahim mooy ku baax ki mbaax gee tax mu tàbbal ñu àjjana arrahim mooy ku yërëmaate yërmande ji tax mu tàbbal ñu àjjana yàlla suñu borom defal na qaala qaa'ilun minhum inni kaana li qarin bu ko defee nit ki day tàbbi àjjana ba noppi am dëkkandoom bu ko jege woon lool te gisu ko muy laaj gaa yi naan leen man de biñ ñëwee ci àddina amoon naa benn waay bu ma amoon boo xam ni léeg-léeg sax ñu discuter yaqulu a innaka la min al musaddiqin léeg-léeg dañ daan discuter maak moom mu naa ma ma yow affaire àllaaxira gëm nga koo waay ay àjjana ay sawara loolu ay faux problème rek la sunu borom mu ni fa talaa mu yuqamtiku rek fa raahu fi sawaa'il jahim sunu borom mu ni bi mu yuddoo rek mu seen waa ji ndeke waajaa ngay allawti ko ci biir sawara si xaal waa ji tiit ni tallaahi gin naa ci yàlla in kun in kitta la turdiin man de yàllaa ma defal sans tuuti kon rek nga alak ma walaw la ni'matu rabbi bu dul woon a xéewal gi ma yàlla defal la kuntu min al muxdarin dinaa bokk ci ñiy ànd ak mbugal mi ci yow te ci yow tey borom bi mu ni waa ajana yalbasuuna dañuy sol min sundusin ci soie bu diis lool te rafet allahu akbar soie boo xam ni mbokk yàlla moo ko defar ca loxol boppam ajana joo xam ni yàlla moo ko defar ca loxol boppam bâtiment yoo xam ni sunu borom a ko tabax ca loxol boppam xéewal yoo xam ni sunu borom a ko waajal ca loxol boppam walakum fiha ma tashtahi al anfus yàlla mu ne góorgóorlu leen rek bu ngeen yegsee dinaa leen gate ba mboolem lu neex bakkat yàlla mu ni fa nga koy fekk wa talazul aayun loo xam ni bu ko bët xoolee kontaan ma nga fa sunu borom mu ni jazaan bi ma kaanu yaamaluun dama leen koo fayee fii ci aj ajana borom bi subhanahu wa taala mu ni dañuy sol ci istabraq ak sundus mutaqaabiliina waaye dañuy jàkkaarloo sunu borom mu ni kazalika ni ki noonu yamul foofu de kazalika yàlla mu ni xéewali du yam foofu de wa zawajnaahum takkal naa leen bi xuurin ayin ci ay soxna yoo xam ne ñoo tudd xuurul ayin muy soxna yu taaru yooyee nga xam ni benn soxna boo ci teewal allahu akbar ka annahunna baydun maknun yàlla mu ni nen bu weex tàll ñu dugal ko ci boîte bu weex tàll ah kaste ko ak jama muy lerax lerax yi bir yi doomu aadama yi di ko seetaan sunu borom ni rafetaay googa soxnay ajana yi xeeb nan ko ka annahunna alyaquutu wal marjaan yàlla mu ni ay jigéen lañ yoo xam ni yàlla da leen a yanjal ah bind leen aw mbindin moo xam ni taar ba mi ngi mel ni yaaquut ak marjaan nga xam ni yaaquut ak marjaan ak lu'lu ak zabarjat yii mooy xeeti per yi dàq ci àddina bi àddina warngal kap géej gaag jéeri ja laa wax asamaan sa ak suuf sa per yin xam yi fi dàq mooy yii lu'lu marjaan yaaquut zabarjat nga xam ni mooy per yi nga xam ne tey ku ci am benn rek yow daanaka bu yeboo nga bàyyi liggéey xool leen jamaa da ngay gis koo xam ni perab jamaa lay am allahu akbar man faa jaaree bàyyi liggéey borom bi subhanahu wa taala mu ni kadalika niki noonu wa zawwajnaahum dañ leen di takkal bi xuurin ayn ci ay soxna yoo xam ni soxna yu am taxawaay la ñuy doon ca kaw rafet lool xoolal mbokk yi melokaan wi ëpp wu sunu borom di melal jigéenu ajana ya bët yi lay tudd moo tax borom xam-xam dañuy wax ni ay bët dafa bokk ci taaru jigéen am bët jigéen ju am bët day bokk ci taaru jigéen arab yi dañ doon taggee loola gis nga ndaw sa ba waaja di kenn yonent bi man day dañ maa may soxna ci waalal saar yonent bi ni ko gis nga ko mu ni ko déedéet mu ni ko demal nga xooli ko ndax waa lansaar seen bët yi am na lu ca ne borom xam-xam yi dañuy wax ni xeet woowu xeet lañ doon yoo xam ni seen bët yi dafa tuuti lool loolu taxoon yonent bi ni ko demal xool ba xam xemem nga wala déet alxuurul ayn mooy jigéen joo xam ni bët yi dafa ubbeeku lool rëy booleeg rafet booleeg yaatu xef ya sëq lool allahu akbar borom bi mu ni yii soxna laa leen di waajal foofa ci àjjana ja nga xam ni mboolem doomu aadama lu ma sa xalaat ci xeeti xéwal ci xeeti bànneex ki nga xam ni jigéen ci caaxaan yooye wala góor bu dee jigéen na ci caaxaan yi moo ko dévié allahu akbar bu dee jigéen jëla jëkkër ja muy am ca biir àjjana du saxut sikkim ngir ñu wan ko ni ko yow gone nga sikkim dañ koy jaamoo yàlla fii ci àddina buñ demee ba àllaaxira ñu ni bismil bis ni ki tey wàcc na leen góor yooyee fa digg dooley góor fa lay toll te du ko romb amul màggat amul feebar amul ndigg luy métti amul tayal xale yu góor yu taxaw tem subhanallah wallahi benn góorub àjjana boo ko seenoon ñii di safi mbër tey ay sànqalañ lañ lay saf ay sànqalañ yow jëkkër joo xam ni njoolaayam juróom-benn fukki xasab la mooy jëkkër ji bu taxawoon ci reede suuf bi ci suuf mën naa teg loxoom ca étage ba ca kaw bu bu taxawee góor gi sa jëkkër bu taxawee fii ci suuf bu talalee loxoom laal ca kaw waxuma bal ko premier étage ba ca kaw laa wax ndax njoolaay ba ponkalaay bi borom bi da koy jox doole yi ñeent fukki góor tey boo sélectionné woon góor yi àddina bi nga tànn 40 personnes yoo xam ne jàpp nañ ni ñii ñoo ëpp doole ñu jël seen doole ñoom ñëpp genn góor àjjana loolu lay am jigéen ña nag allahu akbar jigéen la ñuy doon ñoo xam ni xoorul ayin ñuy taaru lool rafet ba jéggi dayoo maanaam taarab jigéen yi waa àjjana ci boppam moom la nit mënta mel mu jeex taarab jigéen yi waa àjjana ci boppam moom la nit ki mënta melal imaam ibnil jawzi moo ngi nettali ci sifatu safwa ab nettali boo xam ni ñeneen ci borom xam-xam yi saxal nan ko te nettali boobu nekkul ci sifatu safwa kese mi ngi ci yeneen ci siyar benn waay bu ñuy wax Abdul Wahid nga xam ne ci mujaahiduun yu mag ya ci jamonoom la bokkoon dafa àndoon ak benn gone ñuy dem jihaad gone koo xam ni yaayam moo ko waajal ni ko demal xissa bu gudd la waaye dama koy tënk rek ndaw si ah ñu koy wax ummu Ibrahim dafa gis ni màggat na mënta dem jihaad nee na mu yabal doom ji ni ko demal Abdul Wahid nee na bi ma séenee gone gi dama ne ko yow doo dem xare parce que xale nga booy nga nee na xale bi yërëmtalu ba ma convaincre ma ñu dem waaye seetlu naa ni daal xale bi bu ñuy war moo ñu gën a man nga war ah buñ maf ñaandoo moo ñu gën a jekku fas wi maf ñaandu mooy nga jékki-jékki rek tëb rek war te tegoo dara tegoo teg moo ñu ko gën a jekku nee na bu ñuy xaree kasaalika nee na togg jot ñu ni dañ leen togg reer wala añ xale bi ni maa leen di toggal nee na ñu bàyyi ko muy togg ndeke tëdd na di nelaw ci kaw benn xeer nee na bi mu tëddee ci xeer wi di nelaw Abdul Wahid nee na ma toog ba mu yàgg gisuma ko ma ne xaaral ma xool sàngoor si ci lu mu ne nee na ma ñëw fekk mu tëral bopp bi di nelaw waaye maa ngi koy gis mi ngi reetaan ci gént gi mi ngi mi ngi reetaan ci nelaw gi nee na muy ree di ree di ree ci nelaw yi te mi ngi nelaw ba mu yàgg ma ni ko sawaay looy ree mu ne ma bàyyil noonu rek ñu dem ma ne ko déedéet du ma bàyyi noonu bala maa jóge fii tey di nga ma wax li ngay ree lan la gone gi lànk ni du ko nettali mag mi ni nikk ci loxo bi ni ko duma la bàyyi di nga ma wax li ngay gént li ngay ree lan la mu ni ko non benn gént la woon rek mu ni ko gént gi laa bëgg nga nettali ma ko mu ni ko dama tëdd ci nelaw yi ma gént tàbbi biir àjjana te ki may wax gone la de mu ni bi mu tàbbee àjjana nee na mu daal di séen benn néeg ñu ni ko kaay dugg nee na bi mu duggee ci biir néeg bi xayma jamam munu koo melal ndax ni mu rafetee ki loolu mën naa nekk gént àjjana mën naa nekk ndax ci sunna lu koy dàq amut waa ji nee na maa ngi seen benn lal jigéen ji ca tëdd tëdd moom siggi di ko xool rek yow sa say bët sa kersak bët bayu la ko ndax ndaw si ni mu taaroo nee na may waxtaan ak moom ñuy waxtaan waaye ba léegi jegewu ma ko laalu ma ko nee na may wax ndaw si di tontu ñuy waxtaan ndaw si di tontu mu ne mënatuma ko muñ may yóotu sama loxo ndaw si ni ma eh déedéet mën a goomaa laal ndax àpp bi jotagul mu ne ko kañ la àpp bi jot mu ne ko xanaa suba ginnaaw tisbaar nee na foofu la gént gi yam mu yeewu waa ji nag bi mu yeewoo dafa mel ni gént gi daf koo solal énergie ci xare bi Abdul Wahid mooy nettali nee na waa ji moom dafa mel ni kuñ ñu woon suba ci tisbaar ngay dem àjjana effectivement waxtu woowa ca la waa ji sahid loola moo tax ñu bari am rafet njort ca moom ca loolu ci gént googu ndax waxtu wa ko ndaw si waxoon ci gént gi muy ginnaaw tisbaar ci la shahid ci la faatu waaye xoolal kooku la mu séen ba mu tax mu def li mu def parce que la mu gént a tax la mu gis moo tax ibn al qayyim rahimahullah soo delloo ca téeréem bu am solo booba nga xam ni ca la way ay way yu yu yu am solo di ci wax ajjana wala nga dellu ci beneen téere bu ñu xaadil arwaax ila bilaadil afraax téere la boo xam ni mbokk yi wallahi ku dib jàngkat ku nekk jàpp naa ni boo bëggee xam ajjana jaadu na nga am ko téere ba ba téere ba jeex ajjana lay waxtaane waxul ci leneen tur wa rek moo njëkk a neex mooy xaadil arwaax ila bilaadil afraax xalam gi xalamal ruu yi di leen gunge bañ tàbbi àjjana allahu akbar soo demee ci téere boobu daanaka yeneen téere yi toxal yépp ca lañ koy toxal ibn alqayim day wax ni fa yaa xaatiba alxasnaai in kunta raaxiba ee yow mi nga xam ni yaay labat ci jigéeni àjjana ya su fekkee wér na ni li ngay wax ni bëgg nga ci jigéeni àjjana ya dëgg la fa hada zamanu lmuhri fa huwa almuqaddamu yow mii di labat soxnay ajana ya su fekkee li ngay wax ni bëgg nga ca dëgg la fa hada zamanu lmuhri mu ni fi ne ñi ngi toll ci jamonoy joxe can fa huwa almuqaddamu te xam nga ni joxe can mooy jiita takub si allahu akbar joxe can gi mooy góorgóorlu ci say jaamu yàlla joxe can gi mooy moytu ay bàkkaar joxe can gi mooy góorgóorlu ci lépp loo xam ne maa yurdi rabba luy gërëm loo yàlla fa yaa xaatiba alxasnaai in kunta raxiban fa hada zamanu almuhri fa huwa almuqaddamu yow mi bëgg ci jabari ajana ya yëgal ni fi mu ne nii ñu ngi toll ci jamonoy joxe can fa huwa almuqaddamu te joxe can mooy jiitu takub sëy walamma jara maa ushababi bi xusniha tayaqana xaqan annahu laysa yahramu allahu akbar mu ni ba nga nee ba xërñët sa biir bàmmeel ni dagaj biir ajana ah nee na ñaqu màggat ñaqu nekk mag ah moom lañ ñuy xetee rocc sànni la ko fële te yaqana foofa ngay amee kóolute ci ni annahu laysa yahramu nekk dootoo màggetati mukk xam nga doomu aadama bu amee soxna ba noppi nekk màggat mënatul dara loolu loolu neexut de nettil woon naan fa waa ji doon wax yàlla da koo nattoo ci ndawam amul dara amul tus dara wala kaana ba dara amu ko bi mu demee ba am juróom-ñett fukki at alal ji tuuru ci kawam te yàlla day def loolu léeg da la koy teel a jox nga continuer ba kere ngay faatu léeg-léeg mu teel la ko jox daal di koy nangu léeg-léeg mu xañ la ko ba ngay waaj a faatu mu jox la ko paa bi yàlla dénk ko ci xeeti alal loo xam ne ni mu toll jéggi na dayoo jigéeni basra yeeg jigéeni kuufa yi dëkk dëkkaat yi ndaw su dégg paa bi rek takkali ko ak sa baay dem ndax alal xam nga jigéen woon daanaka dañuy wax ni jigéen daa bañ bee jaaw ak bañ yu yàqu ma ni ba mu des borom amee alal jigéen day bañ bee jaaw ak bañ yu yàqu ma ni ba mu des bu amee alal boo amee alal duñ gisati yooyu boo amee alal duñ toppatooti yooyu jigéen ñi commencé di ko wër ñii di ko foqal baaraama tànkam ñii di ko bësal tànk yi ñii di ko teeñal bopp ba ñii di ko di ko gis nga kenn ku ci nekk ñee ngi koy teeñ ñee ngi koy fompal ñee ngi koy defar ñee ngi koy foq ay baaraamam ñii di ko bësal ndiggam xam nga rek waaye waa ji daal guddeeg bëccëg moom foo fekk mi ngi onk rek on on di onk rek xaalu jigéen ji ko waaw ni ko aniinuka tuulal layli yushiruna yow sa onk yi ngay onk ñun fi ne guddi dañoo bëgg a nelaw te duñ mën a nelaw ndax sa onk yi maa tashtaki lan moo la naqari qaala thamanin mu ni sama juróom-ñett fukki at yi moo ma naqari ah yow lu mu bëgg a lekk mi ngi koy lekk lu mu bëgg a naan mi ngi koy naan am na alal waaye léegi mënu koo exploiter parce que dafa màggat léegi nag loolu ngir ni wan lañ la neexul moo tax yàlla mu ni ci ajana damay dindi li ñuy tuddee màggat moo tax ibn alqayim mu ni wa kun mubridan lilxaainaati li xubbiha fa taxza biha min dunihinna wa tanaamu mu ni man de dama lay conseillé fii ci àddina jigéen ñu saay-saay yi nga xam ne ñooy futteeku di dungaaral mel ni fasinaari góor di wër ak lu ñu taaru taaru taaru mu ni gédd leen ndax jigéen ñu bon lañ même boo leen bëggee xañ ko sa bakkan nee na su boobaa xañ gi nga ko xañ yàlla dina la ko fayee takkal la ca ñële mu tekki ni wa kun ayyiman mimma siwaha fa innaha li mithlika fi jannati adnin ta ayyamu allahu akbar mu ni bu la neexee sax célibataire ci ñoom célibataire gii mi ngi ci namm célibataire ci jigéen ju bon wa kun ayyiman célibataire mimma siwaha ci ñeneen ñu dut ñii fa innaha ndax ndaw sa ca ajana di la xaar li mithlika ca ajana li mithlika ku mel ni yow fii jannati adnin ci ajana yi adan te ayyamu ma ngay célibataire ngir nee na yow lay xaar wa sum yawmaka al adna laallaka fi gadin tafuuzu bi iidi alfitri wannaasu suwamu allahu akbar mu ni wa sum wooral yawmaka sa bis bi laallaka aman na fii gadin ëllëg alaxira tafuusu bi iidil fitri bis bu korite jotee muy da nga kontaan wan naa su suwa mu fekk ña wóorul woon tey ñoo ayee woo ca la waxee fa xayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al ula wa fiha almuxayamu walakinana sabyu aladuwi laallana naudu ila awtanina wa nasla mu ni ngal la waay fa hayya kaay leen ala jannaati adnin maa ngi leen di woo ci ajanay sax dàkk joo xam ni nee na fa innaha ajana jooju manazinul al ula mooy sun kër yu yàgg ya wa fiha al muxayyamu mbaa xayma ya yàlla daajal boppam fa la nekk mu ni ma al asaf suñu noonu muy iblis moo ñu màngoon ba indi ñu ci àddina kon nañ tiitaat ndax danañ dellu fan jóge wal wala déet yàlla suñu borom delloo sunu borom ni kadalika ndiki noonu wa zawajnaahum ma takkal leen bi xuurin ayn ci ay soxna yu rafet lool ba jéggi dayoo sunu borom ni yaduuna fiiha dañuy woote bi kulli faakihatin ci mboolem firwi bi ñu soxla te loo laaj ñu jox la ajana xeet yi nga xam ci ay xeeti firwi yépp ma nga fa xam naa ku gaaw a saalit ba tàbbi fa moom dee ngay def ca bunt ba ajana ku gaaw a saalit ba tàbbi fa dee ngay def ca bunt ba ndax la ko waral mooy dinañ la jox ci ay xeeti berndeel loo xam ni da ngay yaakaar ni ajjana yépp li a fi nekk ñu ne la déedéet lii moom ngay deseeroo doog a doog a añi ajana da ngay deseeroo firwiye ba noppi doog a añi ñun dañuy añ lu naqari ba noppi deseeroo lu naqari fee nag da ngay deseeru ba noppi doog a añ ndax yonent bi nee na ci buntu ajana la ñuy taxaw yàlla dajale ñu fa ñu ñëpp gàtta leen ba seen xol yi set ku nekk ka la war a tàbbal sa kër fan lay fekk si malaaka yàlla sa soxna la ala kulli xaal fan ngay fekk si jël la yóbbu suñu borom mu ni keroog laa leen di jox bi kulli faakihatin mboolem fir wi bu ma sa am ma nga fa aminin sumuwaay jërul ngay gaawtu parce que du jeex aminin sumuwaay jërul ngay denc parce que fañ ko génnee ma nga ne fa gasaa aminin sum waay jëru nga yaakaar day manqué parce que mbir mi du fu jeex aminin sum waay jëlal bii bu la neexee jëlal bee te it boo soxla ma nga fa aminin mooy dañuy am sécurité ci ne du manqué laa yaduquuna suñu borom ne duñ mos fiiha ca ajana ja almawta dee illa almawtata al ula lu dul dee gu njëkk ga waaye yéen deewoon ngeen ñu ni waaw waaw suñu borom ni dee jeex na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla day indi dee ba ci diggante àjjana ak sawara def ko mu mel ni am xaram tabaski sunu baram ne yéen waa àjjana lii lan la waa àjjana ni ko lii de mooy dee mu ne waa sawara waaw yéen lii lan la waa sawara ni ko lii de mooy dee sunu baram ni déqit dee rey ni waa àjjana yeey xoloodun fala mawt waa sawara ee xulóodun fala mawt léegi dee xeewi na dee mi doon rayee ci ndigalul sunu borom moom la ñu ray tey yent bi mu ni yàlla soo tala di waa ajana léegi amatul dee waa sawara kadalik yàlla ni ee yéen waa ajana inna lakum am ngeen fii ci àddina ajana an tasixu da ngeen di wér pele fala tasxamu amul feebar amul sibiru amul wànnen amul soj amul jabet amul cancer amul hémorroïde amul dara ci xeeti feebar yi am ci àddina amul déedéet fala tasqamu du ngeen feebar de amul faju ji parce que doo feebar wa inna lakum garanti na leen an taichu da ngeen di dund fala tamutu du ngeen dee ndax déqi déqati nañ dee rey wa inna lakum an tanamu da ngeen di xéewlu fala tabasu du ngeen mas a ñàkk xéewal wa inna lakum an tashibbu ay gone ngeen doon yéen ñëpp ay goos ngeen di doon fala tashibbu fala tahramu abadan bu yeboo ngeen xam ne du ngeen mas a màgga yére yi nga sol ma xanaa dalay neex nga summi ko waaye du xutti ko du froissé du tilim sunu borom mu ni wa waqaahum ma fegal leen adabal jahim mugal ma nga xam mooy sawaras jahim curadu sa fadlan min rabbik yàlla mu ni lii lépp maa ko def fadlan mu nekk ay ngëneel min rabbika bu bàyyi ko ci sa boroom daalika loolu huwa al fawzu al azim mooy texe gu mag gi yàlla na yàlla defal nu texe gu mag sunu boroom mu ni fa innama yassarnaahu bu nu jàppandalee lay alquran nii bi lisaanika ci sa làmmeñ wi ah nga di ko jàng jàngin wu neex wii alquran yàlla yombalal ko sa làmmeñ nga mën koo jàng di ko tajwid muy neex ba doomu aadama yi di ci yëg seen fuddatu xol la allakum yatazakkaruun ngir nit ñi mën a waaru moo tax alquran ñu di ko jàng yàlla yombalal ko sa làmmiñ ngir ñu man di waaru ak di fàttali koo ko waral sunu borom mu ni fartaqib bu nu gëmul wan la gannaaw topp ñu alquran continuer ci caay-caay gi continuer defi bàkkaar néewal aw yiw fartaqib néggandiku leen fartaqib néggandiku leen comme ni suuratul zuxruf jeexee woon fartaqib néggandiku leen te xaar lan la yàlla nar a wàcc ci seen kaw ci mbugal ndaxte comme ñoom innagum ñoom murtaqibun ñi ngi néggandiku ndax jàpp nañ ni ñoom it ñoom ñooy ñiy texe waaye yàlla mu ni kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli yàlla nee na man maay not maay féete kaw man ak sama yonent ak ñi nga xam ñoo ñu gëm yàlla kon mbokk yi lu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci màggaayu ay turam ci sellaayu ay turam ci kayawaay ba di tawassul ci wépp tur woo xam ni borom bee ko moom moo xam da koo wàcc ci asamaan yeeg suuf yi moo xam da koo xamal jaam yi moo xam da koo téye fa moom kenn xamu ko ñu ngi sukkandiku ci tur yooya di ca jëfandu bu dëgër di ñaan yàlla bi asmaihi alxusna wa sifaatihi al ula yàlla na borom bi xoolee ñu bëtub yërmande boole ñu ci waa ajana yàlla na borom bi musal nu ci sawara ba riir ma ump ñu lépp luy tax nit tàbbi àjjana yàlla na suñu borom xiirtal nu ca loola luy tax nit tàbbi sawara yàlla na suñu borom moytandikuloo ñu loola yàlla na nu génn ci koor gi ak ngërmandel suñu borom yàlla na yàlla noddal te nu suñuy xol ak leeru alquran wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain